noonu nag fii nag bokk ci li nga xam ne mooy lu koy alxaaji Malick TV yi nga xam ne daanaka rek euh, fi leen di faral di defee njàngat yi defar bi nag gaayan ki léegi rek mu pare ci kàddu suñu boroom ngeen def ci ñaan bu ko defee nag gars yi xibaar yi nag dafa mel ni mbàccam garte édition du soir yi ak info matinal yi nga xam ne lépp rek am nañ mëbatu mu dox ci bi la télé cant ngërëm ñeel na leen ngeen dolli ñaan te bàyyi nu xel bu baax baax wooyu leen di topp YouTube bi alxaaji Malick TV info jërë ngeen jëf cant ak ngërëm ñeel na leen Sadio Mané nag Euh, du ñu tardé benn yoon ci xibaar yi nga xam ni moom la ñu dàbbali fii Alioune Cissé ak équipe nationale du Sénégal footballu Sénégal buy màjji-màjji loolay waral Aladji Malick TV di liggéey loolee moom daanaka ni ngeen ko bàyyi xel footballu Sénégal ca kawam ñaancoo ca kawam Pape Matar Sarr Papito ak i gaayam Sénégal gu ndaw gee gu mag gi lépp rek maanaam ngeen dina topp ndax loolee mooy sunu mébét mébét boobu nag yéen a ko mën a yóbbu ca kaw ñu ngi leen di bàyyi xel ci TikTok bi YouTube bi bàyyi leen xel télévision bu mag